les 23 août ba 12 septembre mu mel ni jamono joo xam ne la rek ñii di waa jàngu ji dinañ ci gën a dundal lii di seen ruu ci yooyee jamono nag ujaa ci war a topp ci ginnaaw kii di Yeesu Krista ak mag ñu sell dinañ bàyyeekoo fi ci Dakar wutali Lourdes mu nekk rek firndeelu li nga xam ni moo di église universelle Jérusalem lañuy njëkkee topp ci Rome topp ci Lourdes la jël avion dem Tel Aviv ñu ngi bëgg a dundee pèlerinage ren ci xeloo benno ñun pèlerin nekk benn bokk benn yaram lañu ci Christ bi moo di thème bi ñu utiliser ren ci boobee aj jël nañ ci bépp matukaay ngir seen wér yaram ak seen nekkin ngir ñu mën a am aj gu mucc ayib waaye ci loole mu mel ni rek njëkk wi yokku na loola dal di jóge ci ñaari millions ci suñuy koppar yegg ba ci ñetti millions. li tax prix bi augmenté ci 3 millions 700 ba ci 2 millions 700 ba ci 3 millions lépp cher ci mbirum njënd meeg njaay mi ci mbinum dem beeg dikk bi ak ci mbirum dëkkuwaay. te loolu yëpp il foog ñu mën ko gérer looloo tax ñu jéemaw a yokk tuuti. ñeenti téeméeri ujaaj catholique ñoo fës génnee topp tànku kii du Yeesu Krista dal di bàyyeekoo dakaar jaar Jérusalem Nazareth Rome ba yegg fii ci Lourdes ngir rek gën a firndeel seen ngëm-ngëm bés bu nekk.